Pape Diouf ñu lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa réew Rewmi TV di nuyu aussi internetu euh, Rewmi point com di nuyu aussi lecteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy lire tout le temps Rewmi quotidien en même temps aussi fàttewuma ñi nga xamante ni ñi ngi si site bi ak ñi nekk ci rajo bi muy réew mi FM di nuyu nag le président président Mbagnick maa ngi lay nuyu bu baax. di la ziar bu baax di nuyu nag képp koo xamante ni rek yaa ngi seetaan interview bi. d'accord alors euh, ñu xaw la gëj a gis un peu sur euh, la scène léegi lan moo waral loolu. waaw euh, du dara parce que mën naa ne ça fait presque euh, six mois ngi nii dara yëngatuwul li ko waral mooy Covid bi pandémie bi nga xamante ni moo lëmbe àdduna bi et tey. depuis six mois euh, ñi ngi toog impacté wuñu liggéeyuñu ndax xam nga ñi ngi doon préparer Dakar Arena le 4 avril mais bi yàlla dogalee Covid bi ñëw vraiment bett àdduna bi euh, ñu nekkoon nag ci dina dynamique gu doon préparé suñu fête de l' indépendance waroon amal le 4 avril fële ci Dakar Arena doon ci liggéey nag liggéey bu am solo yàlla dogal Covid bi ñëw donc bi Covid bi ñëwee eh, jaama pexem yàlla ak dogalam donc. Euh, ñu ñu bokk ci xeexu Covid bi bokk ci sensibilisation bi mais je pense que ni aussi permettre nañu aussi ñu am benn stabilité boo xamante ni euh, génne woon nañu benn album tuddee ko live confinement parce que moment boobu y avait beaucoup de stress euh, ci famille y avait beaucoup de de stress par rapport aussi sunu mbokk yi nga xam ne ñi ngi woon ci diaspora bi donc ma ne daal naa am idée def benn album. jëlaat sama sama sama rétroviseur gestuwaat xool morso yi nga xam ne c'était des chefs-d'œuvre ay tube d'été la woon lu mel ni ay cuccu jaral nga ma ay partira donc euh, morceaux yu bëri ma remixé ko génne ko sénégalais yi aussi vraiment euh, enjoy ko bu baax a baax bi loolu weesoo aussi yàlla dogal na man plateforme bi may liggéeyee par exemple euh, lu mel ni tey New African Production label boobu nekk Amérique ak aussi euh, maison de disque bi may liggéeyal muy Universal ñu boole seeni doole ñu ne ah nañ leen anticiper maanaam musique fi mu jëm ci virtuel la jëm parce que ki nga xamante ni artiste la mënul toog 6 mois joué donc looloo waral ci biir Covid bi c'est vrai que yënguwuñu mais nag en virtuel def nañ ci ay festival yu bari yoo xamante ni peut bu ñu ko émission bi maye donc dinaa ko faram-fàcceel sénégalais et que même sax image yooyu dinañ di ngeen ko mën a diffuser pour internetu euh, réew mi point com téléspectateur réew mi TV dinañ ko mën a xool incha allah. Mm. alors Pape Sànq yaa ngi ne euh, comme quoi euh, Covid 19 bi dafa impacté lu bëri ci seen wàllu liggéey et que gis nañu aussi que ci période pandémie bokk nga ci artistes yoo xam ne ñoom ñoo gën a nekk di jouer en streaming. léegi expliqué ñu un peu loolu euh, noo ko dundee ak noo doon def pour égayer ce ce public. waaw xam nga euh, musique euh, dafa laaj xalaat musique dafa laaj anticipation et que bon par chance aussi nous on avait anticipé depuis même boobu bien avant avant que pandémie bi di ñëw parce que événement bi nga xam ne moo nekkoon l'événement phare du Sénégal mu nekkoon le 4 avril bi ñu waroon dem Dakar Arena ñu waroon ko inaugurer. ñu ñëw fa waroon njëkk a dugg pour jouer fa donc dañ ko waroon def en streaming euh, maanaam ñun on avait anticipé boobu xamuñu ne sax Covid day donc bi Covid amee ñu essayé ko ci benn benn week-end la 2 donc maa ngi jégul sax ci publicité bi mais comme que Rewmi TV sama kër la amul problème donc on avait anticipé bi ñu anticipé nag ñu ne li ñu participation financier bi ñu def par rapport à l'État doyul léegi ce qu'on va faire dañuy def concert streaming boobu ñu waroon def et actuellement sénégalais yi stressé nañu ñi ngi confiné mu toog seen kër nan leen may benn concert de streaming boo xamante ni un euro lañ leen di laaj concert boobu déjà dina nekk test par rapport ak logiciel bi ñu bëgg utiliser mais aussi dina nekk test par rapport ak ñun fii ñu jëm ci côté virtuel yàlla dogal ñu def ko mu réussir ñu jënd ci ay masques jënd ci ay denrées alimentaires yóbbu ko ci banlieue bi yóbbu ko ci marché yi donc bi ñu jógee ci loolu aussi ñu waroon def benn festival boo xamante ni mu ngi tudd le festival de Dresde c'était le 15 mai euh, en Allemagne mais bi Covid bi amee donc tubaab yi ñoom ay professionnels lañu parce que dégager nañu seen budget festival yi nit yi dañ doon jóge fu nekk ci àdduna bi léegi ils ont dit que c'est vrai que Covid am na mais du ñu def concert bi en live mais dinañ ko def en virtuel donc muy le 15 mai ci la njëkk a démarrer suma festival ci été bi joué ko muy le festival de Prestige donc bi ñu jógee foofu aussi ku ne xam na ni ren journée africaine bi amoon bi am ren ci 2020 bi seen budget dañ ak communication dañ ko concentré ci Covid 19. donc euh, ñu choisir nag y avait beaucoup d'artistes dans la sous-région Afrique de l'Est Afrique de l'Ouest mais yàlla dogal man Pape doomu Sénégal man la ñu choisir pour ma woy morceau Covid bi donc woy naa ko euh, war naa ko def aussi en featuring ak d'autres artistes africains donc euh, seen journée mu nekkoon le 24 mai aussi def nañ ko avec Union africaine donc le 25 mai aussi ma defaatoon beneen concert streaming ak waa Canal Plus Horizon ak waa Universal parce que qui dit Universal ne Canal Vivendi donc nga gis ni que durant tout le mois de mai ñi ngi doon jouer donc août bi passé aussi euh, ñu am benn euh, raaya boo xamante ni tey euh, ONG boobu ñuy wax Global Summit parce que ku ne Global Summit nga ni Union africaine wala nga ni Nations Unies wala nga ni UNESCO donc ñu taboon ma fa ambassadeur de la bonne volonté ñu doon amal aussi benn concert streaming boo xamante ni ñu ngi ko doon def ak waa Global Summit Japon mais boobu concert virtuel la woon donc bi ñu jógee ci concert boobu le 9 août bi donc le 27 bi aussi ñi ngi ànd ak New African Prediction ak waa Dream Stage donc pour def beneen concert virtuel boo xam ne le 27 lay nekk nga xamante ni fan yi yëpp ñu ngi nekk di ci liggéey ci communication bi di ko promote pour vraiment sénégalais yi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi mën a support seen doom Pape Diouf parce que je suis le africain boo xam ne man rek maa bokk ci concert boobu festival yooyu donc mais loolu aussi ndamu Sénégal la parce que fu ma dem rek sama drapeau réew laay représenté. d'accord euh, Pape ñu gis ne fan yii génnee euh, nga benn album boo xam ne benn single boo xam ne ça a beaucoup fait parler euh, single bi c'est intitulé euh, First Lady. léegi ñu bëggoon xam euh, lan moo waral euh, ce choix euh, ce choix pourquoi le titre First Lady. posé nga question bu am solo First Lady d'ailleurs maa ngi maa ngi nuyu Sénégalais yi. wax dëgg yàlla parce que First Lady euh, gars yi accepté nañ ko xam naa nag nit ku nekk moom euh, war nga ko mën a woyal sa première dame quoi parce que ku nekk sa jabar wala sa copine bi ngay mooy sa première dame mais dama gis ni que tey euh, Sénégal jigéen ñi dañu mën a sëy jigéen ñi dañu fonk seen góor yi moo tax nag ma ma ma bindu woy boobu adressé ko sama soxna donc adressé ko aussi soxna yi nekk ci àdduna bi pour seen jëkkër yi di leen woyal seen jëkkër yi aussi di leen di leen bëggal parce Euh, dara gënul neex ñaar ñu ànd suudewu parce que relation euh, dafa metti léeg-léeg mu metti lool ba jaaxal la mais bu mettee ci ngeen war a gën a jàppante léeg-léeg aussi mu neex ba nga yaakaar ni dootul metti moo tax ma def First di donc déjee ko suma soxna ci bésu anniversaire am et que je pense que ni aussi euh, sénégalais yi accepté nañ ko donc ma leen di wax merci kontaan nañu bu baax quoi D'accord. Euh, alors Pape Diouf ñu gën la xamee ci wàllu musique est-ce que au-delà de de la musique am nga yeneen euh, projet waaw bien sûr au-delà de la musique am na yeneen projet mais projet yooyu bon maa ngi koy mener à l'ombre parce que comme que music musicien lañ ma xamee je suis un artiste donc et que casquette boobu tey lu ma am rek casquette boobu moom ma ko may donc métier boobu moom moo siiw moom laa valoriser mais yeneen yi nga xamante ni mu ngi ci ginnaaw donc euh, je préfère les garder ñu nekk en l'ombre quoi. alors euh, ñu gis ne que maintenant euh, woykat bu mag nga tu es connu au niveau national comme international léegi ñu bëggoon xam ndax say débuts. euh, début, ce début de carrière, c'était compliqué, donc tu avais du mal à te lancer. Comment ça s'est fait Bien sûr, parce que nit ko gis tey rek am na démbam donc suma démb métti woon na trop euh, mais nag dama ko ñafee parce que li naan from zero euh, man euh, dama xoslu donc dama ko dama ko dama ko fighting ba yàlla dogal tey suñu borom def lii mu def donc loolu aussi ma koy sante yàlla di ko sante samay waajur yi ma supporté donc ba ñaanal ma ba ma egsi fii mais début bu metti moom noo ko xalaatee ci carrière Pape Diouf rek xam nga euh, weesu na ko donc fanaan naa ci ay mbedd ngir musique doxe naa ay presque ay centaine de kilomètres ngir musique dawte naa ngir musique donc lu artiste tey bu réussir di daj si musique rek man je pense que man Pape Diouf daj naa lu ko raw et que aussi Séné les Sénégalais euh, sont témoins de ça donc wax naa ko ci plateau bu nekk réyuma pour di ko wax euh, maanaam diisuma pour di ko wax parce que loolu tey mooy sama mooy sama fort ndax su may xalaat fi ma jaar bémb rek loolu mooy waral tey maanaam lu ma gën a euh, lu ma gë lu ma ko gën lu ma ko gën di mën di communiquer daf may neex pour sama rakk yi nga xam ne tey ñi ngi topp ci suma ginnaaw xam ne bu ñu découragé parce que yoon woo gis rek njaal benn dafay metti alors ñu gis ne que souvent da doon faral di organiser euh, euh, concert Dakar Arena et que ren euh, concert bu jotul am ndax contexte bu ñu nekk mais c'est normal parce que tout ce qui est rassemblement dañ koy tere. Mhm. donc euh, xam nga aussi ak plein Covid mënoo jël benn stade boo xam ne vingt mille personnes lay jël duy ko ba mu fees ak et que on est en en Covid donc euh, loolu moo tax actuellement nii depuis mois de février. on a tout arrêté nous la génération consciente joué wuñu parce que ñu ngi doon liggéey ci Covid bi bi Covid bi amee aussi ba aujourd'hui on n'a rien fait donc euh, loolu la quoi. d'accord alors Pape Diouf est-ce que mën nga ñu wax euh, nga raconter ñu benn anecdote wala benn euh, loo xam ne daal marqué na la de bi nga commencé sa carrière ba léegi un boo xam ne daf la marqué métti na la wala jour boobu bànneex nga ci jëlee. waaw euh, tu sais moi j'ai beaucoup d'anecdotes hein. Mm-hmm. mais bi ma leen di wax tey ci président Mbagnick laa koy jël bi may préparer Bercy ndeysaan. Euh, maa ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam muy icône ci réew mi di exemplaire moom tamit mën naa ne su may wax ci sama bopp dama koy xool ma def ko aussi référence parce que moom it dafa démarrer ci zéro donc ba tey aujourd'hui mu teg li mu teg muy président Mbagnick maa ngi koy nuyu de passage donc bi may def Bercy mën naa ne Bercy mooy euh, point bi gën a sensible ci sama carrière parce que Bercy euh, machine la boo xamante ni du machine bu ndaw et bi ma fay dem dama doon jugoon rek aveuglement passion bi ak fugu bi moo ma yóbbu mais li ma waroon dajale derrière pour ma dem Bercy yooyu yëpp c'était pas euh, en place mais moom il m'a soutenu ci Bercy bi jël avion set setaan si ma jël hôtelam setaan si ma déplacé wu ñëw ba biir Bercy vraiment loolu anecdote la boo xamante ni du ma ko mës a fàtte suma àdduna parce que jour boobu bi ma ko gisee dama ko soxla woon foofu donc euh, vraiment président Mbagnick anecdote boobu lu ma marqué ci yow la maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la sàmm sa njaboot du mën a Sénégal ndax yow sa xam-xam ak sa yéene jéggi na Sénégal dafa dafa dafa dafa dafa dafa bëtt frontière li nga bëgg ci Afrique yàlla la ko yàlla defar sàmm sa soxna. Euh, Pape ñu gis ne aussi que génne woon nga benn woy ak euh, Fally Ipupa euh, collaboration bi comment ça s'est fait. oui Fally c'est un frère donc maa ngi koy saluer de passage donc moom aussi c'est un c'est un frère que je respecte énormément li ñu boole mooy disque international bi nga xam ne def nañ ko ak Universal donc ma yàgg ko sentir aussi yàgg bëgg li muy def di ko suivre donc moo tax bi ma ko woowee ci projet bi. lu mu jàppoon da ko bàyyi donc il a répondu vraiment euh, simplement on a chanté on a rigolé vraiment macha allah quoi maa ngi koy nuyu de passage. Euh, l'interview tire sa fin comme ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, suñu mbokk internautes yi auditeurs ak lecteurs Rewmi Quotidien. waaw jërë ngeen jëf ma ni kontaan naa vraiment recevoir leen xanaa rek di leen sensibiliser di leen fàttali le concert bi nga xamante ni moom laay amal le 27 incha allahu rabbi ngeen daw rapidement dugg ci lien bi su ngeen demee Google ngeen def 3w point dreamstage point live bu ngeen ko cliquer rek di ngeen gis lien bi y aura beaucoup de photos yooyu nag ay tubaab lañu bokk du Pape Diouf ngeen pousse pousse ba si Pape Diouf ngeen cliquer lien Pape Diouf dina leen coacher. ngeen book seen ticket vingt cinq dollars lay nekk bu dee Sénégal dollar bi da nga koy convertir en CFA bu dee yéen ci diaspora bi dollar bi da nga koy convertir en Europe ngeen cliquer jënd ak seen crédit carte yore seen code le à partir de 11 heures fii Dakar heure de Dakar la mën ngeen ko seetaan seen smartphone su ngeen nekkee seen i bureau wala ngeen nekk ci euh, rédaction yi tu vois wala ngeen nekk seen salon whatever di ngeen ko mën a seetaan bu dee aux États-Unis dina nekk euh, su ma juumul 7 heures du matin 7 euh, heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures voilà bu dee en Europe dina nekk 13 heures donc euh, ngeen gis ni que y aura beaucoup d' exclusivité y aura des surprises ngeen seetaan Pape Diouf 2 heures de concert non stop ah Pape Diouf et la GC1 je vous donne rendez-vous le 27 incha allah forever one love.